laa ilaaha illallah la may seet sa foto ba suma juumut ku tedd borom jàmm ak jamono Bamba sëñ Bamba amaro yaakaari jaam tey ak ëllëg xaadim jël na turandoom indil ko ki nga xam ni mooy Omar Sakho amaro kàddu yi bari yàlla na jàmm yàgg caat fekk damaa dégg mu koy wax yàlla na jàmm yàgg may nuyu Saliou Khoule sama xarit kenn jëm ak kenn jëmul bala ah Sidi sama rakk ji ma lay gërëm xam nga ne lii lii sëñ Bamba indi indil Omar li nga xam ne moo ne ci xolam mu indi ko Omar looy wax ci lii jërëjëf Mass Bouga lii rek a jar kado bi gis Serigne Khadim Ndiaye li nga indi rek moo jar indi barke nañ wàllay si buri Serigne Mbacke maaram maam jaar mi ci Porokhane Khadim borom nit ñi sunu waa jaa ngi nii kee waral bu ñu dox di siggi di bonde tey xoggaliku ndax moo nu sagal fii moo nu sagal fu nu jëm borom tukki wu ci sëriñ ci wu duun wi balay si buri mi nga xam ne tubaarkàlla macha allah ban nu tëree julli moo julli ci biir néeg gi julli ci couloir yi julli ci mbedd yi ba julli ci géej gi kooku turandoo sëriñ Xaadim mii teew Balla Gaye de di fête anniversaire am tey nag bis bu dellu si moo neex te nit amul lu mu gis juddoom nga teew Xaadim Njaay ànd ak liiru jaan ànd ak boucher kéccub ànd ak say nawle. ñu ne loo teralee Balla Gaye jaaree gaal jëpp jug ñëw teew lan ngay sagalee Balla Gaye ci bisam bii ñi ne li mu gën a bëgg ca àddinaam. et dama ne ñun ñi ko xam yàgg ak moom ndax nag koo defal fukki at yàgg ngeen. Mhm. te maag Omar lu mu néew néew néew ànd na lu 10 ans ndax 2010 ba muy bare. ba muy waaj a bëri ak Modou Lo. jënd boole ba tey. jënd xarit tabaski léegi ca kanam rek. waaye teral nga koo xam ne li nga ko jox. ku mën a terle. kum la na bëgg na la ku dul kii nax na la. Balla Gaye de bëggul ku yàlla bind ku dul Serigne Bamba. xol bi Ahmadou borom daan ñi rek ci ne moo ci fees dell. nga teral ku nekk ci foto Serigne Touba jox ko dama ne ku mën a teew ci mbooloo mi ak loo mën a jox Balla ngay de xaadim jël nga ndam li nga ko jox kenn du ko jox lu ko neexee nii ci guddi tey jii dalam demam dikkam lépp Serigne Bamba la. waaye dama ne Balla Gaye 2 fii mu dëkk ci maris kër gii ñu teew tey di ko feetal anniversaire am ba ñuy samp terrain wi di ko jënd ba fii may wax ak yow maag mooma li ñu fi def ëpp na un milliard ali ay doomi Balla Gaye 2 kenn wul ci kër gi nga ta daara dama ne kër gi bi ñu na nga ci suñu am satu mbàkki baax ma na nga jàng alxuraan na nga jàng xas de Serigne Touba yi na ngay tar biiw na ngay tar xiiw na ngay tas fiiw kii bu ne Serigne Touba la gëm dëgg la xaadim am nga ndam yal na sa jàmm yàgg nga sànni ciy kàddu bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi dellu santaat yàlla julli ci yonent bi sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu di ñaanal Balla Gaye anniversaire bi yàlla na ko féete ay déwéni déwén ci barke Cheikhul Khadim te nag tey dama nen nu ma ñëw muy àll maa ngi ñaan ci sama barke turandoo bi Balla Gaye yàlla bu am lu la naqari di ci lam ci barki Cheikhul Khadim te lii ma lay wax jàpp ko yéen journaliste yi bis ni ki ci kattanu yàlla ak Serigne Touba bu fekkee la yàlla mayewul da dañul Balla Gaye dootu am lu ko naqari ci lam dama lay gën a dolli nag ngay gën muñ tey gën a yaatal nit ku généreux nit ku baax nga kooku da ngaa soxla barki Serigne Touba Mbacke xol bu rafet nga yor te borom xol bu rafet biir dee ci këram nga ci te Balla loo amul loo amul rek bu ko wuti àpp bee jotagul dina ñëw barki Serigne Touba Mbacke gis nga kër gii di nga amaat beneen boo xamante ni sous terrain lay doon maa ngi la koy ñaanal ci barke lii ma la jox nga xam ni mooy yaakaari jaam ñi mooy borom jamono muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi koy ñaan ci sama barke turandoo bii ba nga moom la am yàlla na la Serigne Touba taxawu yàlla boo am jafe-jafe ci biir làmb ak sa njaboot yàlla boo am fa maa ngi la koy ñaanal ci barke Xaadimu Rasuul ndax tey bi may ñëw dafa am lu ma ñëwee quoi moo tax fi mu ne nii dama bëgg a dellu mais maa ngi koy ñaanal làmb ji mu jëm yàlla na ko yàlla may ndam lu set guy te Balla man nag il faut ma jàppale la ndax ragal féete day xëñ a wërsëg barki Serigne ñu boole man toppee ma la alal dama la bëgg ngir jëmmi Serigne lépp looy bëre jàppal ni maa ngi ciy def egg ma sa kër nag mais la ma war a def daan ko defal sama bopp te man it am na ma yàlla may am na lu ma yàlla xamal barki Serigne Touba Mbacke bis ni ki tey laay commencé sama jàppale ak yow. jërëjëf ndax Olof Ndiaye da ne xulil xaq mu law kaaru mu rek. Mm-hmm. dëgg donte dañ koy sa sa sa put sax waxal dëgg. te Balla yàlla na la yàlla ak Serigne Touba taxaw yàlla na la yàlla ak Serigne Touba taxaw te rek a fi nekk ak yoon bi. Mm-hmm. man dama lay sant di la gërëm. di la ñaanal ndax yow Omar da ngay yaatal rek te taalibe Serigne Touba nga da bëgg Serigne Touba. yow da bëgg murit ba nga xamante ni ñëpp nga bëgg sax mais rawatina murit Omaro yàlla la yàlla taxaw di ñuy sama xarit lii du jaar képp ku fi ñëw yàlla nga delluwaat ci jàmm képp koo xamante ni la nga fi tawat yàlla nga ko yàlla wéral ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ci réseaux sociaux yooyu yëpp maa ngi leen xamal ni bis ni ki tey Balla gay mooy def anniversaire yàlla na ko yàlla def mooy ay anniversaire yi anniversaire yi anniversaire ci barke Cheikhul Khadim Balla soo ay anniversaire guddal fan te wér te yàlla musal la ci cat yàlla na la cat seexlu ni musale max ci asamaan yàlla na la ko yàlla musale ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf merci di nuyu ak Thiat maa bu baax ndax Siri Diop moom am jóobeen la xam naa ne lekk ko fii nii joxal liiru joxal liiru nag lu tax nga bàyyi jox ko sëñ Bamba li tax ma jox ko sëñ Bamba dama ko bëgg a dégg sëñ Bamba rek ndax mooy borom àdduna mi ah, am moo la may kii xeex na te bal tàkkul bi tal jugul jaasi jugul mbaram xaadim Balla ah. ah mbooloo mi yéen ko déggandoo noonu. dénk nga ku jara dénk. waaye indi nga kado bu xëy di si keneen kuy mënti indi kado indi nga kado na ndax teraanga suurul góor dina ko woon yoon. waaye sëñ Bamba mii nga ko dénk. ah maak moom toog nan waxtaan ci de waaye la ma wax ci sëñ Bamba maa ngi koy doxe te maa ngi koy gis xale la nag kii gone la waaye ku wéet moom ba toog ak moom waxtaan ak moom ci sëñ Bamba tubaar fakal la macha allah wax baaxul yal na yàlla defal jàmm obaroo nga ni ah car kaay ali kaay liiru sànni kàddu la sëñ Bamba kon ngeen taxaw xaadim taxaw na jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sama xol dafa fees ba ma wax lii dafa neex yàlla na yàlla musal ci cat ak làmmiñ kii lu baax nag lay am ku yóbbu ne ko jàkk te bañ koo piis ndax xolam rafet tey yaatal na ku ñëw mu bàyyi kii tey ba fi ñëw dama ne ko doo dugg mi ngi nii doo dugg dama ko dëggul géej doo fi dugg comprendre nga waaye lii rek lan moo ko waral yaatoom moom yaatoo moom ndax su man donc sama sago moom du fi dugg non non non non ma dama dégg déglu dama ne ku dugg kon xam nga damaa fonk géejawaay damaa bëgg géejawaay non kii du dóor kenn na wax la tiin baal naa ko ak xoolal loolu lépp indi ma baal naa ko ak waaw wax kana kana nga may laaj dama ko laaj moom mi ndaw yi mbi léegi ñaari nag la jox ak moom kii mënu ma koo fay déglu ma waaw déglu ma ko ci jox bala ngay jox waaw ko ci sama sponsor ma ko jox au renouvellement waaye benn affaire laa lay xamal nan ko ñaan euh, man daal ma xamal la benn affaire yow xam nga sama ennemi nga woon sa sama diggante ak yow dër bi la woon waaye li nga def ni tax na man jéggal naa la dama la jàppaloon ci loxo bàyyi naa ko ndax mosoo maa bëgg man mosuma laa bëgg eh, ah. ndax mosoo waa léegi léegi caat li nga defal sama rakk dinaa moom caat seeg jéggal naa la tey bis ana man ak may jege waaye sama rakk dina ko ñaanal yàlla lafal ko cat mu sëpp ci saytaane ak lamet ndax xolam rafet na yéene na ñëpp jàmm kii yàlla ko yàgg fenn aduna ni la aduna darayagul aduna ini aduna ini darayagul nirunya khadim jahan punya bogo yena bogo yena sinibara aduna jihna yena bogo sinibara bayu sinisalim وخير خادم خير الخلق

mu may jamono Khadim Ndiaye yaa fi nii kenn defu Khadim Ndiaye